salaamaaleykum mbokk internet dakarnet point com comme yi ñu koy defee saa su nekk di dalal daana nekk artistes yi fii ci dakarnet duñ def rek lu euh, jox suñu invité euh, bu ñu dalal tey suñu plateau mu nuyoog mbokk internet yi après ñu dëkk ak moom ci waxtaan euh, Prince Jackson ñu lay nuyu di la ziar. dëgg maa leen fay ziar nañu ngi noonu kookoy Prince Jackson duñ def rek lu dugg ci waxtaan bi xuus ci li ñuy waxtaan rek mooy te gis nañ fii grand frère am. présentation dama juum maanaam moom euh, euh, frère Wally Seck la dañu dugg gis nañ keroog sa grand génn wax déclaration ci ci affaire yi ñu koy jiiñ bi ñu ko seetaanee yow loolu euh, nan nga ko jàngatee ak nan nga ko dundee waaw déclaration bi comme ni ko ñëpp jëlee rek mm-hmm. xam nga si moom li mu wax rek mm-hmm. loolu ngay jàpp parce que tamit nit ki magum jëmm la quoi mm-hmm. te magum jëmm lu mu wax loolu ngay jàpp xam nga te Wally responsable la aussi comprendre mhm. am na ay doom xam mhm. nga am naa famille comprendre mhm. xam na lu mu bëgg te fu mu dëkkul kenn mënu ko fa dëkkal tamit na lu mu wax rek loolu la jàpp parce que Sénégal tamit da ngay wax benn wax ñoom ñu ne la noono li nga wax du loolu ñun li ñu xalaat lool la mais mais tamit est-ce bu ñu gisee comme ah, ñoom ñu nekk sur scène ah ñu gis Ameth Thiou ak Amady am taxaw fóonante est-ce que nekk tamit lool tamit mooy xaw a génne faay yu mais Amady Badiane ak ak kii ak. ak Ameth Thiou loolu ñoom bës dañ doon ut rek. da nga jàpp ni ñoom bës lañ doon ut. mooy bës dañ doon ut mais duñu ay góor jigéen. Hmm. ñi leen xam dëgg xam nañ ne duñu ay góor jigéen. waaw même même bu fekkee bës lañu est-ce dara ñu koy utee ci góor a góor. non góor a góor. loo du yoon. bës boo koy ut. Hmm. doo ko utee noonu. d'accord du ngay fóonanteeg sa moroomu góor. pour hmm. am bës. d'accord. comprendre mm-hmm. comme ni gars yi di wutee buzz mm-hmm. man du ma wutee buzz noonu soxlawu ma ko comme booy yu booy yeneen booy yi nga xam ne mm-hmm. dañuy dañuy génne seen taat ci biti pour am buzz ci mel ni ay booy booy booy gis nga ko fi booy booy yu fi génnee seen seen taat ci biti ay góor comprendre pour am buzz jaru ko mais loolu sax moo xaw a tane parce que loolu boo xam def yow sa jëmmi bopp la mais góor a góor taxaw di fóonante sur le scène même même fekkee yow boo ko nekkul képp ko seetaan rafetul fii ak Sénégal nu mel fii kilifa diine yi nekk fii. waaw boo ko defee gars yi dañuy ni tamit ma euh, euh, maam yéen daal lu la mën a wax daal que dañuy jàpp loolu mais ñoom xam nga liñ liñ liñ sentir rek lañ def mais xam nga waali am na ñoo xam ne bu leen waxoon fonante leen ci kaw seen duñ fonante te waali waxul leen ko ñoom ñoo ko sentir def ko pour wut buzz. Mhm. pour seen artiste gën a jóg ci kaw Sénégal am na ay nante aussi. artistes yi ay nante lañu. Mhm. am na ay nit yoo xam ne tam ay nante lañu. Mhm. nañ bokk ci nante yi mais buñ bokk ci gars yi nga xam ne ni lu ñëw rek da nga koy jëlee noonu déggoo Youssou Ndour naan. Mhm. les waxul. jàngal le ca biir. mais yow yow benn xel ñaar que yi ci lobby yi gars yi xaw nañ cee mën a bokk. lobby amul Sénégal lobby amu fi. lobby amul fi déedéet. lobby amu fi pourquoi nga ni lobby amu fi. parce que li tax ma ne lobby amu fi mooy. lobby soxlawuñu Sénégal. les lobbies LGBT. Mhm. soxlawuñu Sénégal wutuñu fi dara. lii yëpp ay ay ay futilité la li tubaab dox futilité ay wax yu fayda la. góor jigéen. Mhm. bu ñemee taxaw ne man góor jigéen laa. Mhm. damay ka samay droit. loolu amul fii Sénégal. ku ko ci nekk da nga koy nëbb. mais doo ko fësal. mais affaire couleur yi ci génn yooyu tamit ba léegi tamit. grand loolu doy na waa trop yi. waaw loolu yàgg na fi. waale moom yàgg nañ ko taxal comprendre mhm. yàgg nañ ko taxal mais moom si boppam ñi ko xam dëgg mhm. xam nañ ne du góor jigéen du mësul nekk góor jigéen te du ko mhm. mës a nekk ba àdduna di tukki parce que waale ñi ko xam dëgg si boo demee Sicap Liberté 4 nga laaj kan mooy waale Seck waaw moom mu ko gis xam ne ah, xale yu jigéen yi fa nekk xale yu mool yi xam nañ ko no d'accord dama ne moom ko gis xam ne Baye Fall la réel la. Mm. waaw mais affaire couleur yi tamit ak tamit temps yi passé bi mu def ba bu mu nekkee kaw seen ñu gis ah, mu amoon problème technique couleur yooyu feeñ tamit loolu tamit moo gën a aggravé waat wax. promotion lañ koy accuser dañuy wax ne il de la promotion LGBT. mais promotion boobu yow yaa xam ne loolu promotion góor jigéen lay def lañ wax loolu lañ koy tuumaal. Mm-hmm. te loolu amul du dëgg ku ko wax da ngay fen loolu amul. Mm. baal ma ci kàddu yi. ko wax ne Wally Seck dafay promouvoir mhm. LGBT wala organisation euh, homosexuelle mhm. waxoo dëgg da nga koo tuumal loo xam ne ay fen la amul parce que Wally amul benn benn évidence buñ mën a génne wala benn argument mhm. bu wane ne moom signé na ak ay accord yaa ngi dégg ak benn organisation LGBT gis nga nit soo koy accusé da war a am preuve nañ waxante dëgg rek gis nga Sénégal da ngay dëgg man Wally dama koo mere da nga ko mere parce que daf ma grand ma def lu man na naqari ma mere ko mais nit ki boo koy seedeel da koy seedeel dëkk mhm. dama ko woy dem fa mhm. mu war ma jàppale jàppale wu ma di jàppale ñeneen te yow ngeen bokk te dama ah, ko woy boole ci son dem fa pour mu jàppale ma mu bañ dem di jàppale ñeneen ma ba ko ak alalam parce que ki kenn du ko forcer ci alalam mais comme sama mbokk la moo tax ma dem ci moom yaakaar ne su ma demee dana ma jàppale léegi bi nga demee moom nan la la wax bi ma demee dafay dama doon wax ak moom mu yëgal veeram dem faalewu ma avancé avancé dem gise gisewaat nañ fi ay yoori yoon toog nañ biir këram ñu wax ma ne ko lii laa bëgg ak mais loolu dee na waar de yow nga nekk frère waale mi mi dawal oto mu romb di wax ak moom mu aj veeram dem non njëkk njëkkul def loolu mhm. njëkkoon na wax ak man normal ba ñu wax ba teg mhm. yaa ngi dégg bi ñu waxee ba teg mhm. peut-être ci diggante bi moom xeeb na ma ci diggante bi wala samay noon dem fa yàq sama der mais est-ce que na la xeeb ak li ngeen bokk yëpp mais mun nañ ma jaxaseeg moom tamit parce que seytaan yi waxul dëgg mais yàq na xel xam nga man gars yi dañ ma teg bët mhm. man am na ñoo xam ne yéene wuñ ma dara ci àdduna <laughs> suñ sañoon ci ay jafe-jafe rek lay nekk dëgg la am na ñoo xam man musuma am dara ci àdduna mhm. ba nit yéene ma ko kon da jàpp ñu jege waali ñoo koy influencé ci affaire yooyu ñu jege waali ko influencé parce que ñooñu man dama woy waali ñoom ñu dégg ko tumaani dégg na ko njaga oro dégg na ko mhm. njaga oro ma jàpp sama loxo ne ma kaay ma boole la ak waali mu jàppale la njaga oro njaga oro ménagère am ñu wër ñëpp xam tout. Mhm. ba ci garde corps yi ñëpp ma xam. Mhm. ñëpp ma bëgg tam. Mhm. jàpp ma ne dañ maa bañ. ndax dama dama woy waali te wu ma fa jikko manqué bañ ma bañ mañ bañ mën maa yeb ñoom. dama leen a jox cër dañ may jox cër rek. comprendre mais mais mais da mais waali personnellement. moom moom xaalisam. ku mu bëgg a jàppale da lay jàppale. ku mu bëggul jàppale du la jàppale. mais jàppale nag du force. nit ki da koy wax rek bàyyi ko. su fekkee sentir na ko mu def ko bu ko sentirul nga bakk alalam yow nga sa bopp kon man su ma déggee sa wax da nga jàpp que ni Wally moom euh, euh, jàppalul ay mbokkam mais ñeneen lay jàppale su ma déggee peut-être certes dina am ay mbokkam yu muy jàppale man loolu wóoruma parce que gisuma beneen mbokkam bu mu jàppale ma teg ci sam bët man mais ak Wally social yi muy def fii yëpp Sénégal gars yi teg seen bët mais social yi muy def ñeneen la koy defal man ñi ma gis man mhm. yaa ngi dégg ñeneen la koy defal mais ñeneen ñi muy jàppale peut-être ay ay frère am ñeneen man mhm. xaw ma ko gis tooguma ci sama bët mais li ma teg sama bët mooy li ci télé bi ak li ci site yu internet yi ñi muy jàppale ay inconnus yu muy jàppale ñoo ñu laay gis te man damay tox sama tànk dem fa ne ko jàppale ma lii laa soxla man damay liggéey sama bopp laa gëm musique laa gëm mhm. ma ne ko musique bii ci laa la woy son baa ngi nii njaga oro déglu ko moom mu déglu ko mu mhm. lëng ma ne ma kontaan naa mhm. sama sama sama woykat bi kontaan naa euh, njaga kontaan na faramaren kontaan na ñëpp kontaan Mhm. yaa ngi dégg. Mhm. ne ma léegi ma ne ko léegi dama bëgg nga jàppale ma def ko clip. Mhm. comprendre mu ne ma ñëwal dimanche ma jox la xaalis ma jàpp ci. nga dem dimanche jox ma yaa ngi dégg dimanche ma dem fa di wax ak moom faale wu ma dem. mu ne ma day liggéey affaire yi nangam nangam nañ xaar ma xaar ba sonn lu ma un an de plus nangu ma jàppale ma bàyyi ko alalam jàpp sama njàmbur téye sama bopp. parce que ba ma fay dem yàllaa taxoon ma dem fa. mais nag l' est la vie. nit ki dem fay xaalis studio woy la. Mhm. war ngaa mu war nga ko mën a jàppale ci clip. surtout sa mbokk tamit surtout sa mbokk. Mhm. mayoo ko oto. mayoo ko kër. Mhm. te yaa ngi koy may ñeneen. mais ki la woy te ñooñu ñu la doo ko jàppale. léegi. loolu indi ma fi li li gën a am solo. pour ñu waxtaan ci. mooy accusation yi ñu koy accuser te mu nekk ay fen man loolu laay dénoncer da nga jàpp da nga jàpp moom dañ koy waxal amul c'est ça que même lu ma ko mere mere damay wax tëgg te yàlla tax mhm. mais waali du góor jigéen mosul jàppale góor jigéen ku ko wax da ngay fen yaa ngi dégg mhm. koy wax ñëpp waxuñu dëgg parce que kenn mosu ko bett ak góor te mi ngi ak jabaram di mhm. am doom comme ñëpp d'accord sénégalais da lay fekk sa biir salle de bain ngay dem dus mu ne la doo demee dus nii doo toogee nii nii ngay toogee <laughs> Sénégal la level quoi <laughs> majorité ñi <laughs> ëpp ci sénégalais dañuy presser le faux pour être le vrai dañ lay reeso soo wanee ginnaaw ñu lekk la mhm. man samay wax du neex parce que damaa dëgg mhm. dégg mais tey jii boo joxee message Wally comme moom mun naa ne adduna bi ñëpp ko bëgg xale yeek mag ñi tey euh, tey ban message nga xëy jox pour ëllëg lépp loo xam ne day daw ci kaw seenam mu koo ko euh, ngeen ñu ko bañ comme genre yi di ko dal. waaw man li ma koy conseiller rek. en tant que frère. mooy mu ne mu mu nekk mu am maturité. d'accord il a 37 Mhm. Mhm. Mhm. yaa ngi dégg. 37 ans la am. 37 yaa ngi dégg. moom ma mag na ma lu mat juróomi daanaka. yaa ngi dégg. mais maturité bi nekk ci man sax nekkul ci moom. gis nga nit da ngay am maturité. nit ku nekk nag ak sa xam-xam ak la yaree. dëgg la yaa ngi may dégg. man ma forcé waali ko defal lii wala defal laa. yaa ngi dégg mais tamit frère am nga am nga droit conseiller. mais mooy am maturité. am fulla ci boppam mhm. jël carrière am en main mhm. yaa di dox ci xam-xam di dox ci fulla ak fayda d'accord parce que carrière du caaxaan mhm. boo ko fooyee rek yàq lu bëri mais dégg nañ mu ne dafa porter plainte oustaz euh, Makhtar Sarr loolu nan yow loolu euh, ban jàngat nga ci mais oustaz Makhtar Sarr dafa yàbbiwul waali moo tax day tudd waali ci làmmiñam di wax ci moom devant télévision mais est-ce que tamit lu papaam euh, waayam ñëwul quoi parce que nañ ci ay waayam mu ne siw boroom waaw papam lu mboy siiw du jàmmi borom boobu bari nañu fi siiw te di am jàmm jàmm yàlla rek a ko yor waaw mais siiw tamit du jàmmi borom mu ngi mënoo nekk àdduna ñëpp bëgg la te kenn du wax ci yow siiw siiw yàlla siiw du jàmmi borom waaw nit boo siiwee foog ñu wax ci yow d'accord nit boo siiwee foog ñu wax ci yow mais da ngeen a jàpp ne moom dafay accuser quoi mais li gën mooy nga mhm. jóg ci sa yaram defal sa bopp dëgg la nee naa ko man man man maa ngi koy conseiller nay jàng alxuraan nay jàng fa la xeeg naa si waali di musluti nit ñi wala mu jëm mhm. ci xasaay sëñ Tuubaa nii musal nit mu di ko def mhm. Sénégal fii dafa bëri ay dëmm de <laughs> dañ lay lekk senegal <laughs> boo jugul sa bopp eh. dañ lay lekk dañ lay faagaagal mm. seen làmm yi rek mën na laa rey da ngay jóg ci sa bopp tey moytu mhm. di jàng alxuraan di muslu ci nit ñi koo xam ne nii bëggu la nga sori ko ku la bëgg nga jege ko te am ful la am caractère xam yaay kan xam fi nga mm. jëm mais Makhtar Sarr dafa làmmiñam da ci tudduwaale lu bëri amu ci droit parce que nit ki amoo droit traité ko de n'importe qui wala nangam nangam amoo droit boobu hmm. parce que amuloo preuve d'accord ñii accusé Wally yëpp amuñu preuve amuñu preuve hmm. preuve amoo preuve ki am fitu porter la plainte hmm. kooku kay euh, xam na ne amoo preuve d'accord yaa ngi amuloo preuve ñoom ñëpp amu ci kenn ku ci mën a génne benn signature bu Wally signé ak mhm. organisation LGBT benn amul d'accord Wally doxul ci yooyu amul mhm. jot boobu mhm. mu ngi ci aaram di liggéey nit ku nekk nag ak ni la yàlla di bindee am na ñoo xam yàlla daleen bindee ñu dëgër comme man nekk gentleman <laughs> dégg loolu mais Wally <laughs> uh-huh. peut-être yàlla di ko bindee mu nooy mais Wally gentleman la de non waxuma loolu gentleman la mais bokkut tey jii ki yëg ci kaw seen di <laughs> fecc comme man tey. Uh-huh. man bu ma yëgee kaw seen. Michael Jackson lay danse. d'accord non man du ma fecc ay mbalax ah. ay rëm tëmbi tëm ay tëmb. kon Jackson bi looloo ko andi. loolu Michael Jackson la. i <laughs> comprendre nga uh-huh. man bu ma yëgee kaw seen damay def am ay moonwalk. i ay moonwalk. yaa ngi dégg ay ay ay wanna be starting something man yooyu laay def ay fecc Michael Jackson hmm. mais Wally bu yéegee kaw seet moom mbalax lay fecc mais mbalax ñëpp a koy fecc man mbalax ni ñu koy feccee nag pour ñu jiñ la góor jigéen day yomb parce que da ngay tëb comme jigéen mais am na fii ñuy fecc di tëb mais du leen jiin loolu mën naa nekk dama ne sorewul ak góor jigéen gis nga dama lay expliquer benn affaire waaw gis nga <laughs> affaire u art yaa ngi dégg mm-hmm. mballax ci wàllu mbalax mhm. ci affaire mbalax gis nga mhm. aar bi amul ci benn artiste boo ko laajoon Youssou Ndour sax wax la ko amul benn artiste bu fi musul kotowaaye góor jigéen ñëw sa soirée wala góor jigéen battre la wala góor jigéen ngeen am relation loolu munul ñàkk soo bis bi fa ñuy mhm. nekk milieu ba ñuy nekk amul segg boîte de nuit yi ñuy nekk munoo ñëw ne góor jigéen ñi génn leen mënoo ñëw ne diw jàkkaarloo moom ne ko góor jigéen nga amoo fa droit mais soirée tamit borom ñaari ñu ngi fa ñu ngi fa fees fa dell guddeeg bëccëg mais man mii xam naa ay góor jigéen yoo xam xam naa leen ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam xam naa leen bëri na ñuy dox ci mbedd mi daje góor jigéen mais milieu yooyu ñoo ci raw boo fa nekkee góor jigéen yi dañ fay ñëw léegi yow bu dee nag yow boo tëggee soirée góor jigéen yi ñëw ñu ne la yow góor jigéen nga mais loolu dafa metti day bëgg a metti nag mhm. alors mi ngi noonu kooku mooy frère Wally Seck yaakaar naa lu mu wax taxaw ah, wax ko ci grand frère am yaakaar naa ne tamit ah, gars yi ni ñu ci bàyyi xel aussi dégg nañ ko bu ñu jugee foofu rek ah, yow dafa mel ni artiste nga de. waaw man de damay woy musique laay def. am nga ñaata single. def naa sept single. sept single. kan ak nga ci woy. benn bi Sénégal laa ci woy. Sénégal. Mhm. benn bi sama rakk bu jigéen. Mhm. benn bi Wally Seck. est que doo may mbokk internet Dakar net yi di nga woy ci Wally Seck tuuti rek. Dakar ga ca yoonu maren hmm. ci bi ci di ca taw ga lay ga ca roonu xaar ga ah, ki de jàmbaar la hmm. Wally Seck do góor jigéen ah, Wally la bàyyi leen fara maren bi mu liggéey liggéeyam son boobu hmm, Wally Seck laa ko koy wax dama nekk boo bëggee nekk héros da am loo sóoru man yaay sama héros. wor na njaga oro mayaat ko mbokk internet li nga wax noonu dafa neex mayaat ko nga ne ko boo bëggee nekk euro. man dama ne Wally Seck. Mhm. son bi moom sax déglu ko bu baax attentivement. d'accord. yaa ngi dégg waaw nga ne ko boo ne ko boo bëggee nekk héros. Wally Seck. Mhm. boo bëggee nekk héros. Mhm. da ngay am loo sóoru. man yaay sama héros. wóor na njaga euro. macha allah. mais Ndiago Euro mooy. mooy ménagère mhm. mais dañoo gis tamit ah, ah, maam sa relation ak euh, Souleymane Faye la moo sa relation ak moom. waaw Souleymane fay li ñu boole mooy suma papa mhm. suma idole la. moom laa gën a fonk ci artistes yëpp. Sénégal bu weesoo Youssou Ndour. yaa ngi dégg. Mhm. Souleymane laa gën a fonk ak Youssou Ndour. parce que ay références la ñu. doo leen ci dara. ñu ngi ci seen Mm-hmm. jàpp seen jàmbur ba pare di dox ci xam-xam ak fulla ak fayda man dama bëgg xam-xam dama bëgg nitu xam-xam mm-hmm. homme de savoir mm-hmm. man ñooñu lay kotowaaye ñi may àndal sax duñ samay morom mais mais mais mais pourquoi jéem a 40 ans 50 ans mais pourquoi jéem a essayer a di jéem a ànd ak moom pourquoi nga choisir Souleymane Faye mais parce que Wally man xaw mu xamul samay qualité bu baax moo tax comme xamul samay qualité bu baax man duma la jege te xamuloo sama valeur parce que bugguma ku ma yeb man boo xamul samay valeur du ma la jege parce que artistes yi ko wër ñi fay ñëw ñëpp duma ma seen morom ñoom ñëpp maa leen mën. yaa fuuf bokkul sax mais comme moom xamul loolu. waay presque waay. Euh. ah mais jàppee na ma peut-être wala muy dégg si man. parce que mhm. ama ama ama Sénégal fii. Mhm. maanaam gars yi dañ lay dañ dañuy wër. Mhm. di yàq sa der. di la sosal pour wutal la ay noon am na ñoo xam ne man mii yéene wuñ ma jàmm te amaguma dara ci àdduna jeune laa bu nekk ci yoon. mais ñu dara. nu mhm. ñu mën a def pour yàqal ma. pour bëgg du ma nekk si jàmm wala du ma réussir wala ma nekk si ay jafe-jafe. seen xol moo lay jox courage sax. non loolu mooy jox courage. mais nag. Mhm. seytaane waxul dëgg mais yàq na xel gi ngeen nit ki. Mhm. boo xam boo ko xamul. maanul ci moom. mais for naa tamit ah, ci weyu bay ne ah, xale yu jigéen dañ laa topp de yow. non jigéen ñi samay xarit lañu. xale yu jigéen ñi dégg da ngaa bari gel waaw bari naa ay gel nag. <laughs> bari naa ay gel mais loolu xanaa grand bi nga xool. est waali instant waali man maa ko sax maa ko bokkuñu sax waali man lay roy ci affaire u gel. man ñi ma yor ci ay xale. <laughs> Eh. waali yorul xaaj bi waali bi mu ci toll. waaw man ñi ma yor nii. Mm-hmm. à l'âge de 31 ans. Mm-hmm. waali amu ko. waali bi muy bi am 31 ans li ma yor ci ay gel lii yoru man maa ngi ak 15 de fonction. 15 gel nga taxaw ci plateau ñëpp di la seetaan sa booy yëpp di la seetaan nga taxaw na am nga. 15 gel non 15 gel yoo xam ne ni ñu ngi fonctionné la wax ñu ngi fonctionné maa ngi 15. kon yow daanaan nga. voilà mais parce que jigéen ñi pour ñun lañu ah. Mhm. jigéen ñi pour ñun lañu mais nag yow yaay def abstinence l' abstinence maanaam lu tubaab di wax abstinence. Mhm. yow yaay xool sa sérieux yow yay xool sa yoon. Mhm. gëm sa musique. Mm-hmm. liggéey fas yéenee tekki gëm sa bopp. Mm-hmm. mais tamit ba nga def carrière yor yor 15 tamit loolu doy na waar de jàmbaar. non mais parce que jigéen. waaw mooy boo bëggee dem ah, boo bëggee réussir ci àdduna. mais nga takk soxna sax. waa déglu ma non soxna moom mbiru yàlla la su jotee rek day am. mais man sama soxna mooy yombul. da nga koy wër boobu ba léegi. dama koy wër ba léegi. te gis nga ko 31 ah, ans. 31 boobu léegi mënoo koo gis sa jabar. ba léegi ko parce que ki may wër. Mhm. mooy jigéen bu bari xam-xam. jigéen bu bari xam-xam. Mhm. ba pare am forme jekk. Mhm. lan mooy projet yi say projet boo jekkul boo jekkul rafetoo. Ah? boo jekkul tamit au moins. parce que léegi booy takk takkal ku ñaaw parce que boo takkee ku rafet yaa gaa koy bokk. gaa gaa yi boo waxaatal ma dégg waaye ba daf may rey. <laughs> ma ne Sénégal fu ñu toll. waaw takkal ku tane. bul takk ku rafet ba ëpp. ndax bu rafetee parce que bu rafetee ba ëpp yaa gaayee koy bokk. d'accord est ce que mën nañoo xam la mooy sa projet Prince Jackson. suma suma ay projet mooy. Mhm. album la bëgg a def. album bi maa ngi tuddee titre bi Sénégal un pays contradictoire mhm. Sénégal dafa contradictoire ñun li tax mënuñoo avancer boobu ba léegi dañu bëri ay contradiction te contradiction yooyu. Mhm. il faut que ñu faj ko ba pare. il faut couper le mal à la source. le mal bi. Mhm. foog ñu dem ci reen ba mhm. fa mbon nga commencé mhm. ñu dagg reen bi mais du ñu nekk fii di attaqué góor jigéen yi di attaqué ñeneen ak ñeneen te ñun suñ jikko yu bon yi dañul ba pare d'accord am nañu lu gën a pire loolu parce que góor jigéen sàngara saa ngi fi caga jaa ngi fi jikko yu bon yaa ngi fi naafeq baa ngi fi lijjanti wuñu loolu dëkk baa ngi salte amuñu assainissement bu baax gouvernement bi doxul liggéey bi doxul santé kenn mënul faju jafe-jafe yi nekk fi jeunes yi amuñu liggéey. Mm-hmm. yow nga dem ci góor jigéen yi naan ay association góor jigéen nangam nangam loolu mooy tardement loolu mooy nelaw yi il faut que sénégalais yi yeewu mm-hmm. comprendre mm-hmm. couper le mal à la source mooy dañu contradictoire parce que éducation islamique éducation occidentale dañu completement incompatible dañu contradictoire duñu mës a compatible ba àdduna di tukki voilà album bi nag loolu laa ko tuddee waaw Sénégal un pays contradictoire waaw maa ngi nuyu ñëpp rek mhm. euh, di wax ne seen mbokku taalibe seen mbokku bu nekk nekk sénégalais mhm. nekk taalibe nekk ci aar di góorgóorlu ñu koy wax Prince Jackson ñu gën ko xam ci Massamba Sène waaw sëriñ Massamba Sène donc maa ngi nuyu ñëpp di ñaanal senegal yëpp jàmm di ñaan nag senegal seeni doom ñu leen di defar te bañ leen a yàq parce que say doom boo leen di yàq sa sa sa relève du baax fii réew mi jëm ni baaxul réewande gi ak yàq der bi dafay gën a yokk te Wally doomu réew mi la te mi ngi góorgóorlu tuxul naanul sàccul fenul mi ngi góorgóorlu di jàppale jeunes yi di def li mën kon même bu dee mi ngi ay erreur wala immaturité nañ ko woone ko yow kat vous immature fexeel nga nekk nit ku nite di def nangam ak nangam bàyyi nangam mais boo ko bëggee accuser directement ci loo xam ne du jikkoom da ngay indi ay problème comprendre parce que moom tamit nit la te lu ko naqaree daf koy manifester moo ta plainte yi ngay dégg ak yooyu yëpp di am nañ ko conseiller rek bu ko defee mu gérer carrière am moytu moom tamit xam fi mu jëm. xam fi mu jëm alors mi ngi noonu mbokk internetu dakarnet.com yi tey li leen leen euh, doon dalal euh, Prince Jackson nekkoon ci ci Wally tey moom lañu dalaloon euh, du defe loolu tamit ah, di gërëm sama techniciens yi ku ci mel ni papa maa ngi koy béggee euh, ku ci mel ni Fallou ak Abdourahmane di leen wax beneen yoon ak keneen incha allah jaa ngeen jëf.